nuyu naa la fay naa la. Balla léegi dama laaj mu Gueye laaj boo xam ni bon il faut mu ma delluwaat ko ci waa fas Papa Sow tey fi mu toll ak combat bi mu engage ak écrit bu mel ni fas ñu jàppoon ne que am nañu professionnalisme boo xamante ne est-ce que war ñu woon mën a gere problème bi am ba Papa Sow génn ci combat bi. waaw euh, asalaamaaleykum Bour maa ngi lay nuyu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonante bi nuyu suñu wayaari waajur.

mais man rek li ma ci xalaat di ko ci wax mooy di wax ni Papa Sow papam dafa bokk suñu sos écurie Fass Papa Sow magam Ousa Sow écurie Fass la defee carrière am Papa Sow Fass la def carrière am la bëree mbapat Fass la bëree petit combat Fass la bëree spécial Fass la bëree grand komba Fass la déggee daal yi et je pense que leader si leaderu écurie Fass yi la bokkoon et je pense que écurie Fass war nañ bàyyi benn xel mbër bu fa jaar ba def fa histoire bàyyi fa empreinte ni mu fay du rafet war di sàmm la te Papa Sow baayam Ali Sow ci ñu sanc Fass doon ànd ak Mbaye Gueye la bokk donc raison yu bëri mënoon nañ ko xool peut-être ñu poussaat décision bi xool ndax dina changer avis jéem a waxtaan ak def ay enquête de moralité waxtaan ak xam lan mooy bëgg-bëggam ak li écurie bi bëgg buñ demee tey buñ gës defoon buñ jëloon seen temps def ay gëstu c'est que jël décision à moo moo moom moom la écurie Fass loolu la ñu war di bàyyi dara day xew ñu koy bàyyi di ko bàyyi di ko bàyyi ba mu àgg ci miir ba léeg ñu rectifier ko wala ñu defaraat ko ñu jël décision je pense que erreur bi loolu la et puis Papa Sow aussi champion la compétiteur la Sénégal xam nañ ko monde Sénégal xam nañ ko na defar écurie am écurie 19 parce que bëri na ay xale yu nekk ci ginnaawam écurie 19 wala mu def écurie tuddee ko nu ko neex champion la. mais dama gis d'habitude ku jugee Fass euh, wala ku fa am problème da ngay jël euh, problème bi sànni ko ci kaw Moustapha Gueye. bon peut-être musa faa Gueye tey ñu bëri bu ñuy wax Fass Moustapha Gueye moo tax ñuy wax Fass et puis bu ñuy wax Moustapha Gueye peut-être c'est c'est c'est pas Moustapha Gueye mais c'est le directeur technique bu ñuy wax Moustapha Gueye c'est parce que moom mooy rakku Mbaye Gueye. bu ñu wax Moustapha Gueye parce que mooy rakku Malick Gueye le secrétaire général ki nga xam ne mooy signé yi mooy jël décision yi tey musa Moustapha Gueye moo nekk ci diggante mbër yi at dirigeant yi tey Moustapha Gueye li mu mën ci diggante dirigeant yi at mbër yi kenn mënu ko ci xëy na moo tax problème bu amee moom da ciy fës lool noonu la demee. mais yow boo ma loolee ni doole actuellement lan lay doon. Alors, Frère Toubab donne le linge sale, c'est là en famille. Et je pense que s'il y a plus de famille, il y a plus de linge sale. Donc on a une relation de bar, Holni, Egurifas, Benkoy Tahol, Benkoy Taholon pour Fas et Dakar. Benkoy Tahol, Benkoy Tahol pour de former les jeunes, pour nous donner des champions. Benkoy Tahol, Taholunyukowon pour les santes, voilà pour les familles. Egurifas, Benkoy Tahol,